بسم الله الرحمن الرحيم يا عباد السلام لكم مني السلام سلام شكله شكر السلام والصلاة والسلام على نبي السلام خير من ألقى السلام ومن رد السلام وعلى آله وصحبه سادات الأنام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيام أمام السلام داعينا السلام راجينا دخول دار السلام ونقول سلام ويقال لنا سلام تحيتهم فيها سلام وقال لهم خزنتها سلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله ndeysaan sant yàlla mi bind asamaan ak suuf alladi an'ama alayna wa ja'ala alqur'ana alkarima akbara ni'ma wa a'zama ni'ma wa a'la ni'ma wa aghla ni'ma xéewali yàlla ci sunu kaw bari na waaye nu ngi koy seedel di seedel almala al aala ne xéewal yim ñu defar bi ci gën a rëy mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak alquran jim ñu andil ndax moo taxoon sunu borom ne yaa ayyuha nnaasu qad jaakum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuuran mubina te burhaan borom xam-xam yi dëppoo nan nangu ne mooy yonent bi ak la andi mooy alquranul karim di ñaan yàlla sunu baay ju tedd ji muy alxaaji njuga yal yàlla guddal fanam yal na ko yàlla may mu dund lu toll la Qunbul dund imam Qunbul dund na 132 ans suñu borom mën na ko ndax Qunbul li tax yàlla may ko ko mooy alquran ki gën a fan ci ñoom mooy Ibnu Amir te 69 ans la dund alquran day guddal fan day rafetal nit day leeral nit yal na yàlla may ko ko mu yàgg taaral suñuy jotaay waaye jëmm yu tedd yii nga xam baaxoo nanu di daje ak ñoom muy fii waaye ak bi weesu ñu daje woon fële ca mburuux lépp nekk ay jotaayi alquran yal nañ ko yàgg daje ba aljanna ñoom bi ñu agsee benn kàddu rek lañ ma laaj ndax waxtaanagoo kon loolu day tekki seen cofeel ci téere yàlla bii alquran tàmbali na di leen sagal dafa tàmbali rek rek dafa tàmbali rek defagul defagul dara ndax tekki bu rëy ba mooy ñun ñëpp mu boole ñu ba biir aljanna udxulul jannata antum wa azwajukum tuxbaruun yàlla mën na ko yàlla nu ko yàlla defal wa jaamiatul huda bil quraan liggéey bi meññante fi tàmbali na yàlla na sunu borom taxawal bâtiment bi gis nga alquran soo ci ànd ak yaqiin te xam naa ne yaqiin gi ngeen doon ne ci seen bàyyi ngeen di doxee ndax sunu borom dañu woon Ibrahima وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين gis nga yàlla bam beugé bëggee liggéeyloo Serigne Touba ci alquran daf ko jox titre foncier bu tolni Touba ba léegi gaay yi ngi dagg jeexut bamou beugé bëggee liggéeyloo Seydil Hadji Malick daf ko jox lu tolni ni ba léegi jeexut nonu la def ak magni yàlla ay hectare yim len di jox ngeen liggéeyal alquran tewuko motax nitu alquran du ñak fayda mukk mukk sunu borom barki alquran daf leen koy jox sëriñ jomaay bi mu toogee fii daanaka matagul ñaari at comme ni ko suñu góor gi waxee ba may wax ci kanamam ne yowmal qiyaam njiitu réew sax su fekkee garaadu njiitu réew su gisee yaayam ak baayam dafay daw ki mokkal alquran rek kay wër way juram ci biir mbooloo mi xaw moon ne réew lay doon dama koy baamuwaat alquran avant tout alquran ca aljanna kon ñoom dañoo bëgg alquran sëriñ Jeyte nu ngi leen seenu bëgg alquran yal na ko yàlla saxal bés Ahmad mu ngi nii dama ko koy nettali maa ngi romb pale ay at ci ginnaaw ma ree dong ngay ne ma looy ree ma ne barki alquran pale ku ma ko jox ma def ko daaray alquran xanaa kay duñ ma tëj loolu du kirim de ah. <laughs> <laughs> waaw ñu sàkk woon ci ñun. ñu waxtaanee makaanatu shababi fi l islaami wal mujtama yàlla dogal waxtu wi tënk ñu lool dañu koy junj rekk mooy palaasu ndaw ci lislaam ak ci société bi yaakaar naa loolu la ndaw ci lislaam mooy xam-xam li njëkk war ndaw mooy xam-xam góorgóorlu jàng ndaw ñaar la ko yàlla digal jàng ak jaamu yàlla ibnu abbas dafay wax ne maa baata allahu nabiyan illa shaaban yàlla mosuta yónni ab yonent lu dul ne ba mu koy yónni ab ndaw la ab jeune la pour ngeen xam li jeune mën a def ci lislaam lim mën a def ci diine waaye ak li mu mën a def ci société ndax ab ndaw su ko diine yarul ba pare door koo duggal ci société bi njabootu seytaane rekk lay doon di yàq di dem moo tax ndaw dañ koy defar ci diine ba pare door koo xiirtal ci société bi mu defar moo tax ñoom nag ci seenu xikma ñu njëkke ci ndaw ak diine ji ibnu abbas nee ne yàlla yonenti bu mos a yónni dafa lay yónni fekk ndaw nga moo tax mu ne wala uutiya al ilma aalimun illa shaaban sunu boroom most dénk xam-xam lu dul ak ndaw maanaam xam-xam yàlla daf la koy jox ba nga nekkee ndaw la la koy tàmbalee jox nga koy màggaale moo tax jàngat xul da ngay naxante ak moom wér na sax ci xam-xam ne mujjug jamono bokk na ci màndarga yi wane ne addunaa ngi waaj a tukki boroom xam-xam yi li ëpp ci ñoom ay ndaw la ñuy doon lolé la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale yonent yu njëkk ya xoolal comme ni ko alquran waxee yonent yàlla ibrahim ba mu gisee ay nitam ñu ngi yàq ñu ngi jaamu ku yàlla di jaamu ay xërëm di yàq nit ñi di leen weddiloo yàlla ci jamono boo xam ne buur ba bokk na ci ñi yilifoon àdduna muy numruud ibrahim bàyyi ba seen feet bi nga xam ne mooy annuel nga xam ne ci la ñuy màggal seeni xërëm mu bàyyi ba ñoom ñu génni parce que ñoom dañ daan togg ay bernde suñ toggee bernde tegal ko xërëm yi daal di génni suñu ñëwee nee nañ xërëm yi barkeelu nañ ba pare ñoom ñu door a barkeelu Ibrahim bàyyi ba ñoom ñu génni mu toj xërëm yépp ba mu des benn mu wékk ko sémmiñ bi ba ñu ñëwee ne ku toj xërëm bi Ibrahima ne laaj leen ko xërëm bu mag bi moom moo noggatu ay rakkam <laughs> ñoom ñu ne sami'na fatan yuqaalu lahu yadkuruhum yuqaalu lahu ibrahima lu tax sunu borom ne fatan maanaam ndaw ab ndaw bu gis lu jaaduwut ci société bi mu jug pour soppi ko moom mooy ibrahim ay ndaw xitam àndaat soppi dara ci société sunu borom daal di koy nettaliwaat ci alquran innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda ay ndaw yu àndoon fas yéenee soppi seen société ba ñu nar leen a faat ñu génn daw làqu ji ba sunu borom def ci ñoom kéemtaan sunu borom daldi leen faat ñetti téeméeri at yu teg juróom-ñeent ngir lan danoo jógoon ngir soppi seenub société kon lépp rek dañ cay déggee ay ndaw du ñu lem seeni loxo ne lii xew ci société bi sunu yoon nekku ci yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wa salaam njëkke muy doon ab yonent sax ñépp xam nañu ne lemul ay loxoom ne man ab shérif laa daal di toog yonent yàlla muhammad sàmm na kon ndaw yi yeewoo seen kër bàyyi nan ci bàyyi xel da daan xëy di sàmmi yonent yàlla muhammad jaayi na ba sunu borom fekk ko ak ay ay wërsëg kon ndaw waroo sax rëy daa di dem ca àll ba wuut ay gàtt di sàmm ndax yonent yàlla muhammad def na ko waaye dëkk bi su dëgëree duggal ci marché bii nga dem jaayi ndax yonent yàlla muhammad def na ko yonent yàlla ibrahima maçon la woon mu xëcc doomam ismail ca masooga wa id yarfau ibrahimu alqawaacida min albeyti wa ismail duggal ci mecc mi rek nga sàkku ci yàlla rabbana taqabbal minna yonent yàlla daawud ñépp xam nañ ne moom ci wàlluk weñ la doon liggéey am na nun koy tuddeeti ci wolof yaakaar naa mooy tëgg ah tëgg ah déedéet ci ci ci ci daawud ci weñ la doon defar moom da doon defar yére xeexukaay métier métallique yooyu yëpp day dugg ci lépp lo xamné xétu xeetu ci weñ la yonent yàlla daoud lolo nekkoon métiem wa yonent yàlla musa id qala musa li fatahu ñep xamnañ ne fata gogu moy yonent yàlla yusha wa yonent yàlla yusha mom ab mol la won mol kon yonent yi dano amone amoon ba la ñuy nekk ak yonent nit nak waro nekk ab yambar rawati na nitu alquranul karim waye xitam warone man dama tuti ci ay at yent yàlla Muhammad bi muy genn aduna da fa yebal ben armée bo xamantene mu dadi fal ca kaw ku ñu tuddi usama ibn Zayd usama 18 ans la amone te ci bir armée boobu kibaru sahaba ñu ci bir muy Abu Bakr Siddiq Omar ibn al-Khattab uthman ibn Affan Ali ibn Abi Talib ñom ñep ab ndaw dadi len jité kon dañ ca yégee ne ndaw kenn du ko xeeb Sénégal nag léeg ñu ne kañ la juddu démb la juddu wala barki démb wala man kilifa laa ndaw du ma jiite yonent yàlla Muhammad xoolal ku toll ni Abu Bakr Omar Ousmane ñëpp mu daal di jiital ndaw lu am 18 ans est-ce que ndaw loolu su meloon ni ndawi TikTok tey yonent bi dina ko jiital ku ñu tuddee Muhammad ibnul Qasim su ngeen jàngee ci histoire yow mii moom nga. spécialisé wu muy fatxu bilaadi sand ki ko ubbi nga xam ne jarbaat la woon ci xajjaaj di ans la amoon moo duggal réew yooyu ak boori Inde ci lislaam 17 ans 4 mois jërëjëf yonent yàlla Muhammad bi lislaam di door a judd nga xam ne soo taxawee ci mbeddu makk yi nga ne arrahman ñu wulli la ba nga nooy alquran soo ko jàngee ñu faat la jigéen ju ñuy tuddee su ma yee ñu jam ko xeej ba mu génn ci ndiggam boroom këram nekk yaasir ñu faatale ko ku jàng alquran ñu faat la benn ndaw lu am 16 ans ñu koy tuddee al arqam bunu abil arqam fekk sanc na benn kër ca kaw montagne makka ya moo ne yonent yàlla muhammad yaak saxaaba yi kaay leen ñuy làqatu sama kër di jàng alquran mu nekk première daara ci alquran ci islam ndaw lu am 16 mooy moo tax yàlla barkeel daara jooje ba daara yi di law réew mi bokk na ci ñi fi dàq jàng alquran mooy daara ja ca faas te daara jooje daara yi arqam ibnu abil arkam lañ ko tuddee soo demee ca canaba fekk fa daara yi arqam ibnu abil arqam soo demee Dakar fekk fa arqam ibnu abil arqam te mu nga tàmbalee ci ndaw lu am 16 ubbi këram jox ko yonent bi ak saxaaba yi. la ilaha illallah ndaw am 13 ans yonent bi bolé ko ci ñi daan bind waxyu alquran ñi ko rawale muy Zayd ibn Thabit bim ko tambalé 13 ans la am mu yegne warna yokku xam-xamam mu jàng lang biñu tudde al lughatu suryaniya ak al yahudiyya ci 17 jours fa asbaha tarjamaana nabi sallallahu alayhi wa sallam ci 17 jours la jàng lang yi al luxatu suryaaniya suñu duggoon ci wàllum njiber <laughs> waaw temps bu xat ñaare nee naa leen xam-xam kenn mënu koo jëlee ci man ci jotaay yi ca daara ja ngay ñëw nga xam ne su ma lekkee ba suur damay wax ba xiifaat lang la boo xam ne ñu bari dañu wax ne jinne yi moom mooy seen lang officiel waaye li gën a wér ci boroom xam-xam yi a al luxatu sumaariya wa ma ila dalik yeneen lang yu bari jinne yi dañ koy jëfandikoo waaw saw ko saway sawarul ci waxi jinde damay bañ mu gedd dem ñibbi ki Zayd ibn Saabit jàng lang yooyu ci 17 jours di traduiral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ba ñu waree dajale alquran ci benn téere moom la ñu jiital mu dajale kaamil gii nga xam ne min indi rabbi qad atayta mufassala wa baqiita waxyan daaima tibiyaani moo tax téere bi wa axasa qawman bil inaayati fadlahu وتواترت أخبارهم في الحال أهل الإله هم حماة كتابه الزائدون بروحهم والمال القرآن نيارنغ كوي جوخ روح أكس على الله موتكو عندك تيري واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه تبا ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا يالله يالله بوله تجابوت القرآن يمون فوفو كنجك خان تيل الإسلام واو نير دفاندر يالنتي يالله محمد نقول تود سعد بن أبي وقاص بام كوي دف موم سعد 17 عام رك لا ام موم لا يونتي بي دون خول نان كو هذا خالي فليريني كل امرئ خاله كي موي سما ني جاي نما كو نيك وون ني جايام باموي نديك خاغ دي ديفاندر الاسلام 17 عام kii di Zubayr ibn al moom mi njëkk rocci jaase ngir xeexal yonent bi ci lislaam moom ba mu koy def di ans la am kii di Talhatu bnu Ubayd nga xam ne ca Uhud moom moo jël di défendre yonent bi ba jeexal daa di jël jëmmam ne yéefar yi dóor leen ma waaye du ngeen àgg ci yonent yàlla Muhammad ba baaraamam bii ay balu fitti dal ci mu daa di yàqu moom baaraamam moom ba mu koy def 16 la am ñaari ndaw a ngi nii kenn ki moom mu ngi tudd lan muaaz ibnu amr muaaz ibni amr ibn aljamuux ak ki nga xam ne muawid ibni afra muaaz ibni amr 13 ans la amoon muawid ibni afra 14 ans la amoon xam ngeen ñan la ñaari ndaw ci premier xeex bi l'islam njëkk a xeex am ñaari ndaw kii 13 la am kii 14 ñu taxaw ne kan mooy Aba ñu ne ko mu ngi nële moom moo jiite armée yéefar yi ñu ne comme que ñun dégg nañ ne da doon saaga yont yàlla Muhammad ñoom ñoo xuus ba daal di koy faat rey ko est-ce que ndaw yooyu bokk nañu ak ndaw yi TikTok yi. sinap sinap. ñàkk jom ah. <laughs> kon waxtu wu ñu tënk la. mënon na fi tok di len limal ay mithal yo xamne kenn xamul niñu tollu ndax ñoñe بيوت العز يبنيها الكرام وبالاخلاق يرتفع المقام مانام كرو تيد غي كير يو تدي غايو جامبار يرك نيوم نيوكو تباخ وايي وبالاخلاق تي اي جيكو يرتفع المقام لنيت دي كاوي تي بتو نيت ني فكم من مالك بيت بسيطا إذا ما جاء lil asyaadi qaamu bari na nit koo xam ne fu mu ñëwee ci mbooloo mi ñëpp wormal ko bal sax léeg-léeg ñu jóg taxaw ngir moom waaye soo demee ca këram kër gu simple la yor lan moo waral loolu ay jikkoom ak i xam-xamam waaye wa min malikin baytan kabira wa tabguduhu l mahallatu wal maqaamu allahu akbar bari na koo xam ne pale jotaay bu mu dugg ñépp yàkkamte mu jóge fa ndax dañ koo jéppi la ko waral mooy ay jikkoom yu bon kon nanu góorlu nekk ay misaal nekk exemple ci diine ji muy góor muy jigéen soo waxee ñu ne la jigéen mënta yar njaboot c'est faux Buxaari yaayam a ko yar ndax bi mu ganesee àdduna fekk na baayam faatu te moo raw ci xadis ci histoire wu xadis ahmad ibnu hanbal yaayama ko yar hmm. imaamu shafii yaayama ko yar hmm. abi xanifa bi mu amee douze la baayam faatu yaayama ko yar ñu ne jigéen mënta yor ji yar doom du dëgg yaayama ko yar ñooñu nag wuute nañu gone yi nga xam ne série yi rek lañuy topp ci télé yi bu jeex ñu jàpp beneen di jël seen yaram yi def ko asaman ci réseaux sociaux yi yalla na yàlla barkel bo moy tombe bu ñëk bi ndaw ci l'islam su fekke ndaw ci société nak duma ci wax ndax yàlla dafa joxe benn misal ku ca jangé wut man mënuma laa jàngal wala qad sarrafna fi hadha alqurani min kulli mathal ab ben ndaw bu nekkon ci ben société mu gis ne note na nu société bi yakuna mu commencé te gëm ne moom mën na soppi société bii mm-hmm. mu commencé cee tànn ay xarit yoo xam ne jàpp na ne moom ak ñoom ñoo yemi jikko mm-hmm. ci lu yàggul sunu borom may leen ñu réussir bay jot nguur ga mm-hmm. muy Ousmane Sonko ah, jeex na xam ngeen ne du ma di politique waaye sunu borom dafa joxe misaal ndaw lu gëm boppam ba war a mën a àgg fenn fi ba jot ca mbir ma pour soppi la nga gisoon kon jàngat bi ñuy am mooy gëm-gëm gëmu amoon mu ànd ceeg ay nitam ñu nekk ay nux ba ay tànne foo dem fekk leen fa nga xam ne foo dem nga yëg ne ñañu tànn pour ànd juumuñu mm. parce que ñii ku leen xool xam ne dégloowuñu téere bi déglum politique dañ fee toog toogaayu jànkatu alxuraan yi dañ fee toog toogaayu sàkku tuyaaba ndax alquran kay dégloo kay dégg kay jàng ñëpp tekki nañu barki alquran ñëpp tekki nañu alquran laa ilaha illallah yàlla su doon nit fu ñu jàngee alquran day daanu billaahi su doon nit fu mu feeyee alquran jeexal jàpp leen ci alquran ji barki alquran ku dugg bàmmeel xam ne alquran amul caaxaan ما كان من صواب فمن الرحمن وما كان من خطأ فمن نقصان صلى الإله على النبي وآله ما لبى ملب أو تهلل محرم اللهم اجعلنا من أهل القرآن في هذه الدنيا ومن أهل القرآن الكريم في عالم البرزخ ومن أهل القرآن الكريم يوم القيامة ومن أهل القرآن الكريم في الجنة اللهم لقد حرمتنا رؤية نبينا محمد في هذه الدنيا لا تحرمنا رؤيته في الجنة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 sama poos yàgg na xam sa tur ak sa sant